Je vous ai convié aujourd'hui pour apporter des clarifications devant l'opinion nationale et internationale par rapport aux événements du vendredi dernier, avec des violences inouïes, perpétrées par une certaine soi-disant opposition en perte de vitesse, manipulée par des forces occultes pour tenir le visage de notre chère ville de Thiès. Je ne saurais laisser passer cela sans pour autant dénoncer ces auteurs et fauteurs de troubles, je veux bien citer nommément Ousmane Diagne, maire d'une petite commune qui a manipulé les jeunes en les mettant comme des chairs à canon pour arriver à leur fin. Ce dernier, dans leur folie de brûler la ville, essaie de manipuler cette jeunesse pour venir attaquer le siège de mon parti et ma maison familiale. Il m'accuse de tenir un pistolet en mai pour tuer les jeunes manifestants, ce qui révèle du pur mensonge et de la calomnie. D'ailleurs, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République pour diffamation et dénonciation calomnieuse sous le numéro 1150. Je dis bien, comment un homme aussi ingrat et malhonnête, connu et reconnu de certains bureaux détenant du pouvoir pour manger s'est permis de s'attaquer à son excellence, Monsieur le Président de la République Macky Je lance un appel solennel aux responsables de Benno Bokk Yakaar, de la mouvance présidentielle et des citoyens et les citoyens de se lever pour faire face aux ennemis de la République qui ne cessent qu'à déstabiliser le Sénégal. Il est inacceptable que des énergumènes financés par des forces occultes s'attaquent à un homme de dimension exceptionnelle, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui a transformé le Sénégal dans tous les secteurs et conduit le pays vers l'émergence. Refusons que ces oiseaux de mauvais augure viennent détruire toutes ces avancées, autoroutes, port de l'émergence, le terre, le BRT, la relance du chemin de fer, les hôpitaux, de dernière génération, les universités, etc., etc. Car ce sont des acquis pour les futures générations. La situation du pays est confrontée à une crise insonnelle que le chef de l'AFCA, Macky Sall, n'a pas créée alors que c'est l'opposition qui demande le report des élections présidentielles et non lui personnellement. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Macky a du mérite. car il ne veut rendre un pays instable, mais plutôt un pays stable et prospère à son futur successeur pour le bonheur des populations sénégalaises. J'en appelle à toute la classe politique, la société civile, les citoyens de tous bords, répondre positivement à l'appel du dialogue national en fait de sauver le Sénégal des fossoyeurs qui ne servent qu'à l'amener vers le chaos. J'attire l'attention des pères mère de famille à veiller sur les enfants, en fait que ces pyromanes ne viennent les sacrifier pour un pouvoir qu'ils exerceront, qu'ils n'exerceront jamais. Je ne saurais terminer sans féliciter nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont été à la hauteur pour défendre la République. jamono yu ñuy commencé woon taal dëkk bi ñu commencé ko ci cocktail Molotov yi ñëpp gis nañu man maa nekkoon cible bi fii à Thiès yéen ci yi témoin force de défense et de sécurité yi témoin lañu bu ngeen xoolee sama permanence di ngeen gis ne sànni nañ fi ay huile et autres mu ngi ci miir yi ñëpp gis nañ ko sànni nañ fi ay cocktail molotov ba police scientifique ñëw jël ko au vu au seuil de tout le monde saa bu taal di am man maay nekk cible bi man munuma nangu Ousmane Diagne jiital ay ndaw ñu déparé place de France romb gouvernance romb Croix-Rouge romb manufacture ñëw ba sama buntu kër di fi taal au vu au seuil de tout le monde man est-ce que dama war a toog di croiser le bras ñuy taal sama kër wala di attaquer suma kër yaay parce que toog na restaurant bi muy fréquenté ñëpp xam nañ ko gannaaw mairie restaurant ba la toog ne moom tribunal lay liggéey dana ma détruire parce que ay collègues am ñoo fa nekk bi ma gisee mu posté Facebook di yàq suma der di ma ne dama jël pistolet di ko tirer si ay ndaw ce qui reflète du pur mensonge kenn gisuma ma tirer mais nag am naa droit défendre suma alal ak li ma moom sama kër la ñu ñëw di ko ñëpp di ko gis gis nañu safara yi gis nañu lépp ñëpp gis nañ ko vidéo fi kenn gisuma ma tiire mais am naa sañ-sañ li ma yoon may parce que je suis chef de parti politique fii Thiès li leen metti askanu Thiès gis nañ ko man maay dimbale askan bi maay faj buubu gàcce yi ñoom ñoom dañoo nekk mairie ñoom dañoo yore mairie di détourner les fonds dimbalewu bi li may defal askan bi moo leen metti moo tax tey ñu jóge taxaw pour gàkkal sama der gàkkal ñu ma àndal mais loolu du jàll parce que nee man bi ma gisee démb mu def ay menaces am si Facebook laa xëy suba j'ai porté plainte au du procureur de la République sous le numéro 1150 moom si ay waxam wax na ne tribunal lañ ko informé bi mu duggee bureau procureur la gis sama plainte foofu kon kan moo ko informé ne def naa plainte man 1150 mooy sama numéro plainte mooy nii moom plainte am 1171 la te nee na tribunal lañ ko wooye ne ko Massaly def na plainte moo tax mu dugal plainte pour yàq suma der di ma di ma traiter de tentative de meurtre quelqu'un que j'ai aidé quelqu'un que j'ai couvé quelqu'un que j'ai tout fait pour lui la preuve ma propre fille quand bi mu gisee Ousmane Diagne ji wax di tuumal baayam ma fi a pleuré ne papa xanaa di kii moo ñëwoon toog ak ñun yendoog ñun si taatu mango bi nga jël xaalis jox ko kooku moo taxaw tey di yàq sa der ah man mérité naa koo xam ne je l'ai aidé je l'ai couvé j'ai tout fait pour euh, ce temps ce gars a même des gens qui m'ont dit que bi muy bind sax tayu ko parce que li muy jëfandikoo ñëpp xam nañ ko parce qu'il n'est jamais lucide man si dëkk bi laa dëkk man fii laa man je pèse bien moom man buñ ma defee test musuma naan sàngara musuma koo jëfandikoo ñu koy jëfandikoo fii si dëkk bi xam nañ leen man man mënta yàq suma der mënuma gàkkal tey laa gën a taxaw askanu Thiès tey laa leen gën a dimbale tey gën a am li ma war a jox ko taxaw nañu nag taxaw nañu wax nañu ne man maa leen lajal Thiès parce que maay défendre président la République maay défendre la République keroog bi ñu dooree alkaati yi ñëpp gis nañ ko képp ku amoon mbokku homme de tenue sa yaram dafa daw dóor nañ fi ay alkaati jël xeer dóor ko seen bopp au vu au su de tout le monde moom nekkul sama maire commune Thiès est la bokk te man sama commune la ñu ñëw ñëw ba sama buntu di ko taal ñëpp di ko gis man bu ñuy taal sama kër dama war a croiser bara ñaata yoon lañ may ciblé di ma ko def parce que man maa leen sonal Thiès maa fiy doxal dëgg maa jege askan bi maa leen di dimbale. moom xam na ma il a toujours eu une haine viscérale sur ma personne yàgg na maa def Cuba d'une manière indirecte tey la ko fasal wane ko mais dina xam ne man la ko digaaleel la ma koy ñaan mooy suba nee nañ dañuy marche. moom na fexee ba bu mu daw parce que il a toujours été au pol un euh, poltron bi ñuy jàng lycée dafa musa làqatu def ay jeux suba li ma koy ñaan rek mooy grève bi na fexe suba na jiite seen marche bi li ma koy ñaan Ousmane Diagne moom si boppam na ko jiite moom si boppam mu ñëw sama kër euh, su mu xool na ko jiite rek man loolu laa ñaan moom xam na man xam na ma moom si boppam na ko jiite loolu laa ñaan na jiite suba marche bi mu ñëw bañ a làqatu si ay xale may wax père de ak mère famille nañu téye seen i doom ñoom bu ñuy waxtaan si kaw duñ ko fekkee suñuy discuter duñ ko fekkee suñuy raket kilifa yi duñ ko fekkee bu xew jotee ñuy génne doomu jàmbur yi pour ñu leen di rey si mbedd bi man du ma rey kenn de mais am naa droit man sama kër ma défendre suma kër défendre sama bien taxaw sama alal taxaw aar suma yaay aar sumay mag aar sumay rek parce que suma kër la du ma kenn du ko tal